convention de partenariat biñu biñu bi ñu signé ni xam nga modèle de ISEP bi liñ ko créer dañu def en sorte que professionnels yi ak acteurs ISEP bi ñom ñoko ñom ñoko ñoo ko sanc ñoom ñoo liggé ci référentiel yi ñom ñoo liggé ci outils pédagogiques yi nga xamné mom lañuy utiliser yépp pour en tout cas def suñu enseignement apprentissage yi donc biñu ko défé comme ñun dañu wara dem déjà volet stage bi waxna ko ba pare mais comme dañu dem wara dem ubi ben ben métier bu tudd

avec la numérisation la digitalisation de la santé nous avons affaire numérique ñun nous moi je pense que nous avons a partenariat bu le cadre bu vraiment donc vraiment di santé le professeur Mboub et puis di ko wax ne di ñaan yalla aussi suñu partenariat bi mu donne un partenariat vraiment périn bo xamné lepp luñ ci sentu vraiment dinañ ci mëna def dal parce que lepp luñu def rek c'est pour les jeunes ñun suñu action yépp centralité bi c'est les jeunes donc ñu ñaan yalla partenariat bi vraiment jeunes yi gis ci sen bop et que vraiment dinañu permettre ñu am cadre bo xamné ne yi bu ñu jàngee ba paré rek dinañ am fuñu liggéey